waaw asalaamaaleykum mbokk yi euh, may wax rek à la suite de Amadou li nga xam ni tey ci suba moo dal ci Sénégal muy naqar muy tiis muy metti metti boo xam ne dafa dal ci ñun ñëpp avant ñuy nekk ay candidats à l'élection présidentielle ay sénégalais lañu d'abord te li dal tey ci Sénégal ñun ñëpp. la naqari may wax ni réew mi dafa am ñu tuur seen deret dafa am ñu sacrifier seen seen àdduna dafa am ñu sacrifier seen famille sacrifier seen bopp pour Sénégal nekk Sénégal depuis indépendance ba léegi jàpp ñu ne am na benn nit boo xam ne war nga dogalal waa Sénégal li nga xam ne moom la ñu bëgg jaaduwul président Macky Sall amul benn droit du constitution bu ko ko jox du loi bu ko ko jox du décret bu mu mën a signer boppam bu ko jox doole ju mu def li mu def tey ñu jàpp ne dafa jalgati sunu constitution dafa jalgati yoon loolu nag waa Sénégal yépp la naqari may wax ne président Macky Sall Sénégal jox nañ ko lépp Sénégal defal nañ ko teraanga bu nekk le peuple sénégalais ne mérite pas ce que le président Macky Sall a fait aujourd'hui nous sommes un grand peuple on doit avoir des dirigeants dignes de ce nom mais pas des dirigeants yoo xam ne dañuy jël le pays jël les Sénégalais en otage jaaduwul donc ñun ñun ñi ñëpp daje fii ak ñeneen ñoo xam ne dañu ñëw fekk si ñu wala ñëw ànd ak ñun ci combat bi nga xam ne moom la ñuy mëne nous rejetons et fermement li nga xam ne moom la def tey Amadou wax na ko campagne électorale bi minuit lay commencé tey bu subaa incha allah dinañu campagne bu subaa li nga xam ne loolu la ñu constitution bi jox loi jox ñu ko règlement jox ñu ko dinañ ci taxaw subaa ñu lancer sunu campagne incha allah. donc di wax sénégalais yi ne leen lii xew tey du problème mu opposition du problème mu candidat mais problème mu waa Sénégal yëpp la sànq damay wax ni mbejum kanam boroom a koy fayal boppam sénégalais yi dañu war a mobiliser wu ñëpp muy fii ci Ndakaaru muy ci région yëpp ñu mobiliser wu pour récupérer sunu souveraineté parce que loolu moo jaadu le président Macky Sall ne peut pas prendre le peuple sénégalais en otage du ñu ko nangu donc sénégalais yëpp bëgg naa ñu mobiliser wu ba li nga xam ne noonu la tënkee sunu ay loxo ak sunu ay tànk bëgg ñu imposer loo xam ne c'est pas démocratique du loi moo ko tëral du constitution moo ko tëral ñu xeex ko te jëlee ko fi bu ñu jógul leneen a ngi ñëw te looloo gën a doy waar donc ma jàpp ne mobilisation bi ça doit une mobilisation totale et général de l'ensemble du peuple sénégalais ba li ñu bëgg di ko xeex ci démocratie di ko xeex ci liberté di ko xeex ci sunu réew baax ci sunu réew tegu ci yoon réew mi nekk un pays de liberté un pays de démocratie mais surtout un pays d'état de droit parce que ñun loolu la ñu gëm parce que yeneen réew ngi koy def te ëpp ñu ñu xam-xam ëpp ñu ñu patriotisme ci sunu réew donc loolu combat la boo xam ne ñun ñëpp ñoo koy mëne incha allah donc may encore une fois di wax ne ñun en ce qui nous concerne bu subaa dinañu commencer suñu campagne am na nag ay dispositions yoo xam ne bu soobe yàlla daañu ko jël mais ñuy appeler à tout le peuple pour que ñu bàyyi xel ci fi nga xam ne fa la ñu jëm ñëpp mobiliser wu ba ñu jotaat suñu liberté doxal suñu réew ni ñu ko war a doxalee may gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah